nos, nos autorités là même le président de la République il ne nous parle pas hein. il nous parle rarement gis nga tey dama lay wax noonu ah, loolu sax du question man waxewuma ko sax sensu politique waaw bàyyi ma wax la waxewuma waxewuma waaw waxuma sensu politique biri ma bàyyi ma ñëw dañuy waxtaan non non non xolo bàyyi ma maa ngi wax lu sérieux parce que gis nga gis nga problème culture la de parler à son peuple ngay échanger ak ñoom nga leen di wax di leen rendre compte da ngay gis ay état yoo xamante ni benn militaire mooy daanu fen lan la leen di jël cinq minutes ñu dugg léegi ni am nañ un vaillant militaire caporal de nangam nangam classe telle pour la nation il a rendu l'âme la nation lui rend tous les honneurs sur nangam nangam kooku doomam papaam yaayam ay mbokkam ba ba ñuy dee cette petite vidéo doy na leen ci adduna pour ñu sentir ni nangam. ñun dañuy am stade Demba Diop huit personnes dee presque daanoondoo ñu ni diw lañ joxoon pour mu defar ko ak nangam ak nangam ñu pare l'autre président ne sort même pas pour nous parler dañuy am bitenti ñu ni la temps de femme ñoo daanoondoo léegi du ñu génn rendre le compte tey jii may wax ak yow des sénégalais ñu ni la ñi ngi woon ci yoon attentat terroriste ay sénégalais nekkoon ci oto yi ñu rey ay soldats maliens au minimum ñu génnee le communiqué rendre le compte c'est une question de culture réellement du ay waxu politique de mais nous nos états n'ont pas l'habitude de nous rendre compte dañuy waxante dëgg léegi nag pour ñëw ci passeport diplomatique gis nga passeport diplomatique dañuy waxante dëgg adduna dafa am fu mu toll ci mbiru terrorisme adduna dafa am fu mu toll ci wàllu sécurité passeport diplomatique dafa nekk loo xamante ni pouvoir discrétionnaire u président la am na même ay secret yoo xamante ni day am ci pour ñu jox ko nit ñun xamee nañ ci ay mbir ni Yasser Arafat ba ba muy gaañu passeport diplomatique sénégalais la yor moom la voyagé ba ba muy dee parce que Sénégal moo doon représenté Palestine ci lépp Guillaume Soro ñëw na fii ñu jox ko passeport diplomatique sénégalais loolu dafa am lu muy signifier parce que passeport diplomatique bi dafa am lu bari lu muy régler mais yow yaa ngi imaginer bu amee diil ci passeport diplomatique nit jihadiste jot ko dem ci beneen dëkk boom fa walla taal fa c'est une question elle extrêmement importante bu amee li ñu wax ni ku ndobin rey sa maam boo séenee lu ñuul dawal xam nga man li neex mooy fi ñu toll damaa pouvoirul opposition ma li ma saflaay wax ak li ma sentir li ma expérience may dossier Khalifa Sall dama koo fekkee nekkoon l'un des rares témoins fekke naa fi dossier yu bari fii yoo xamante ni quand ça concerne un opposant mais vraiment le rythme cadence bi dafay jóg dafay gaaw dañuy waxante dëkk tey dañu ni l'institution de l'Assemblée nationale ñu ñëpp d'accord andoo nit ñi ni mu touché woo dafa yéeme te passeport diplomatique di souveraineté di loo xamante ni image yu dëkk lay lay représenté bu fekkee laal na lii mu laal tey waroon naa toll foo xamante ni tey au moins les sénégalais war nañ informer wu beneen chose may dégg ñu naan assemblée dafa nekk vacances parlementaire moo tax nangam ak nangam non code de procédure pénal bi bi ñu koy voté barki Dembo Ndiaye dañu woote euh, procédure d'urgence ñu voté ko gars yi jóge vacances ñëw voté ko moi je pense que gis nga tey dossier dossier yàgg nañ ko yàgg nañ koy topp muy am ay lu ci nekk mais mu gaaw man fekke naa naa la dossier xalifa Sall li ci amoon moo gënoon a mais ça s'est accéléré en un de temps pour terminer foofu état nag dañuy waxante dëgg rek état dina toll foo xamante ni dina xam lu mënta wax kenn man li ma gëm mooy dossier passeport yi egg na foo xamante ni est-ce que gënul ñu teg ci tànk waxuma pour protéger qui que ce soit de dama ni état dana toll ci xam loo xam ni bu lépp feeñee mu gaañ am réew dañuy waxante dëgg nu sommes des sénégalais dañuy waxante dëgg la France ak euh, Maroc ba bi may ñëw sànq ci problème ay terroristes yoo xamante ni fichier nañ leen bëgg leen a delloo tax na la France wàññi de cinquante pour cent ses ses ses visas contre Maroc contre l'Algérie def ko contre Tunisie passeport diplomatique dafa nekk lu grave aussi beneen affaire ñi ngi tooñ tamit ay jàmburam man dama yàgg liggéey ak ambassade yi xam ci ñu bari xaw cee for as tuuti ci diplomatie mais yow xam nga ni chauffeuru ambassade chauffeur chauffeur kese sax buy servir beneen dëkk pour Sénégal ba cinq doomam am nañ droit ñoom ñëpp ñu am passeport diplomatique cinq doomam laa la de juróomi doom bu ko yàlla mayee mu barkeel am nañ droit am passeport diplomatique li ma lay wax tele laay waxee ba ba ñuy am vingt ans da romb nag xale bu def crop sañse def jiin seereem taxaw di cappi-cappi te fekk na c'est un droit parce que aussi tamit il faut ñuy xam ni dañuy waxee à la télé ñuy baaxee nit ñi ñu xam li ñu war a xam loolu nag ça ne signifie pas parce que aussi mënuñu jël ñëpp ñu mettre leen ci même lot mais ñu xam ni gis nga diplomatie du ci mbedd lay xewe mm-hmm. lenn nag laay wax mm-hmm. yamale moi j'ai écouté xam nga nit ñi dañu comprendre man ak malal même mës nañu fi am prise de gueule nit ñi di wax man kii ñoo defandoo génération kilifa man ak kii fekkee naa ñu xeex sonn pour le Sénégal comme ni ma gëmee ni juum am na pour man comme ni kii wax nag euh, présomption d'innocence moom yàlla rek a xam dañuy dem ba jeex mais man ci vidéo bi li ma dégg mhm. dégg naa même baatu passeport diplomatique ci vidéo kilifa comme ni ma ko ni ma ko gisee ci kaawu ñii police enquête joxe dama accélération fii décélérer fii du lu baax pour un état beneen chose il faut dissocier da nga dem à l'aéroport fekk xale bu ndaw bu am vingt ans fekk na baayam mooy servir dans un autre pays parfois les diplomates c'est des gens yoo xam ni deux ans la ñuy defaat fii tampon dellu le plus long de leur temps ci àdduna ci seen dund ci biti lañ koy def en général booy lañ yoo des fois nga gis ci njaboot yoo xamante ni dañuy am sax une acculturation pour te dire vrai donc nañ bañ di juum di jaawat la ñëpp mais justice à deux vitesses baaxul non s'il te plaît Papis Kon